di wax ne tey bu ma mënee taxaw ci plateau di wax nit ñi di ma dégg wala ñuy am yaakaar si man di ma xool di ma ràññee di ma identifier c'est grace à monsieur le maire à Fall Mar monsieur le maire Alioune Fall moom la ñu yàlla booleel ci politique ñu ànd si ak moom mu nekk ànd boo xam ne jàpp nañ ne ànd bu sincère la parce que dafa nekk ànd boo xam ne àndu nawlaw la ku ko xam-xam ne moom ku bëgga a Tëngéej la ku ko xam-xam ne moom ku bëgg askanam la loolu tax na képp koo xam ne yaa ngi bootu si ginnaawam da ngay loo def rek da nga koy xeeb parce que booy ànd ak koo xam ne xolam dafa laa biir moom ngay xool lu mu def loolu ngay xool ñu siy sant yàlla bu baax a baax di wax ne tey waa jokkul ñun dañoo am sas bu rëy rëy rëy parce que dañu yàgg di wax ne monsieur le maire fu ñu dugg ñu ne foofu yaa fa nekk fu ñu dugg ñu ne yaa fa nekk mu am benn waay boo xam ne wax na ne de monsieur le maire bu élection yi jubee di nga xam ne li ma yor yëpp ci ay millions dinaa ko xëpp a jokkul muy indiwaat kàddu bi nga xam ne waxoon nañ ko fi mooy waa jokkul ay picc lañ wante man jàpp naa ne kàddu yooyu kàddu boo xam ne mën nañ ko situer dans le passé lay doon parce que jeunesse bi ma gis ñu taxaw fii kenn fayu leen dara te soo ba léegi yéen a ngi taxaw jigéen ñi nga xam ne ñoo fi toog kenn fayu leen dara parce que ñun digguñu leen ay financement digguñu leen ay millions ñu leen di jox ngeen di ko def seen ay kees mais dañ leen dig ne dañoo bëgg a liggéey Tëngéej dañ leen dig ne ki nga xam ne moom lañ am muy suñu candidat pour la commune fas yéene ko yóbbu aussi pour la ville liggéey na si goxam liggéey na si Tëngéej loo xam ne ñëpp nawloo nañ ko si may wax ne ku am candidat bu mel ni monsieur le maire Alioune Fall Mar waroo tiit waroo ragal ndax nag gars yi nga xam ne ñoo fi nekk di ku nekk boo sañoon tey di nga am mbër mu mel ni moom nga làngox moom pour mën a dem uti ndax nag nekk na ko xam ne neewul kenn kaay wante ñëpp njaw nañ ñëpp njaw nañ ça veut dire ñoom xam nañ ki ñuy janoon moom mooy kan te janoo bi ñuy janoo ak ñeneen ñi yaakaar bi ñu si yaakaar si yéen ñi fi toog lañ ko am ñuy ñaan yàlla li nga xam ne taxawe ngeen ko tey si jokkul waaju ci waa Tawféex ci waa Babou salaam ci waa aselem ci waa Kapek ñi nga jokkul njuureen njaayeen lew na jokkul ñoo njëw tey kenn andiw fi mobilisation boo xam ne dañ koo importé may sant yàlla bu baax a baax a baax si cofeel bi ngeen wanewaat feddali ko pour monsieur le maire Alioune Fall ma bëgg a wax tuuti si li nga xam ne mu ngi kay def si askan bi te yaakaar naa ne nit ñi bàyyiwu si xel monsieur le maire dafa liggéey ci commune am si commune am ba mu yaatu lool lool lool macha allah bu ñuy jël ci wàllu budget budget commune bu ko Ouest moo gën a néew ginnaaw sendu ci budget wante macha allah liñ naan bari le barkeel le moo ko gën monsieur le maire day liggéey di liggéey di jàppale askan bi loolu moo tax nit ñi di am yaakaar di ko fal di ko falaat ñuy ñaan yàlla yaakaar bi ngeen amoon si moom képp koo xam ne yaa ngi ko doon jàppale démb tey jii la ko gën a soxlaa tey la ko gën a soxlaa parce que jooy bi ñuy jooy mooy ouest masul am maire de ville moom moo ñu ko mën a fajal mënuñu ko fajal nag te fekk ñun xamuñu lan mooy suñu soxla xamuñu lan mooy suñu bëgg-bëgg ndax nag mënoo wax ne damaa manqué ay tali damaa manqué ay lampe damaa manqué ay emploi manqué ay investissement yoo xam ne ki la ko war a defal dafa tàllal loxoom ne dama koy uti nga bëgg a kaaw du mooyu wan ko ginnaaw te man jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo fi toog ñëpp am nañ yéene yóbbu monsieur le maire au niveau de la ville de Rufisque yóbbu ko ville nag damay wax ne bokkul loo xam ne lu ñuy doy lay doon ñu dañ kaa bëgg a yóbbu mairie ville fal ci commune bi yóbbu ko ville ndax toog gi mu toog ci commune bi xam na fan mooy metti xam na fan mooy metti moo ne diir bi mu fi toog xam na commune bi lan la soxlaa làmbatuwul expérience am la am ak xam-xamam ak yeneem te yaakaar naa ne waa Tëngéej nañ ko ci jàppale waa Ouest nañ ko ci jàppale waa jokkul waa nañ ma jàppale ma jàppale Alioune Mar waa jokkul njuureen waa jokkul njuureen yaakaar naa ne di jàppale Cheikh Ndoye ak Issa Mbaye pour liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ñu man si dem ñu man si dem ba bu bu si wote waa Maurice Gueye bi nga xam ne mooy centre bi nga xam ne gars yi moo leen teree nelaw ñu gañe ko balaa midi mu leer nañ ñu gañe ko gañe bu leer nañ laa bëgg ma di leen laaj ndax waay jokkul dañ ma leen laaj ndax waay dañoo doyal ci monsieur Mar kon nag li ci des mooy dolli dolli dolli dolli xam nga nag xam nga nag suñu adversaire yi ñu ne maar daal jokkul kenn àndul ak moom mais tey jii boo gisee meetingu Astou Gaye bii nga xam ne waa jokkul liir yi sax man lañu àndal tey nag sama yaram dafa daw man ngeen di watal moom loolu mooy géej gi am na ndox yéen moom Aliou Fall ngeen di watal komin moom ngeen di watal ville loolu mooy àll bi am na ay garab damay wax ne yéen yéen a koy wax ne ku gis nen xam na nen ngi nii ñun ñii ñun la waa jokkul àndal ñeneen ñi nag mën nañoo toog tey jii nag duma ci sori parce que li ñu war a wax yépp wax nañ ko caméraman yi li ñu war a filmer yépp filmer nañ ko tëggkat yi ñu war tëgg yépp tëgg nañ ko waykat yi tamit lu ñu waya way yépp way nañ ko xanaa dañuy góor góorgóorlu rekk di jël tuuti temps pour sant ñépp Astou Gueye nag Boubacar Ablaye Diop su ma toogee fii di leen sant léegi waa jàkka ji ne ma ndax déggoo nodd ak fajar ndax li ma bëgg a leen wax mënuma ko wax ci benn guddi jàpp leen ne rek suñu coalition bi yëpp seen xol sedd na mais xam nga ne yéen waa Jokkul xam ngeen lu gën a sedd sama xol lu gën a daw sama yaram Ndeye Dieng dafa way ndara yaay kodd maar ma defe ne man maa ko moom ndeke sama rakk ki ne maare ngi nii ñëw feccal ma ñëw feccal ma ñëw defal ma lépp avant moom avant moom mu yéeg sama beneen rakk boo xam ne maa ko utal palaas mi ngi liggéey ci mairie bi moom moo di Ayta Ndiaye Ayta Ndiaye ñëw na fi Kindemar ñëw na fi man léegi ban waa Mareen moo ma dese kon li fi des nag moo di fulla xam nga ku daa joxe xaalis nga defe ne woon ne yow mii man ngaa gañe boo demee ba xam ne mënatoo gañe di nga joxe xaalis bu gën a bari la ma leen wax rekk bu ñu xeex bu ñu xuloo bu ñu wax lu bon bu ñu delloo wax ju bon mais nag ku leen jox xaalis lekk leen su ma fa jaaree ngeen jox ma ci ataaya ji ma naan centre Maurice Guèye ngeen bokk ko ak Père Mboup sama xarit sama rak nga am taxawaay ci dëkk ñun ñëpp xam nañ li muy def bokk ak Astou Gueye bokk ak Baye Mbaye Diall bokk ak Issa bokk ak Badou marem damane damane dama ne yéen duma leen may midi nee naa leen 10 heures ngeen gagné ñu tëj biro yi.